min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala xawata di ne nuyu nag ci turu Baye Cheikh Lo mi nga xam ne mooy jëwriñu mag maj maw noori ni sëñ bi teg ko suñ kanam doxale ko suñ diggante ak moom yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci taalibe yépp rawata ci maj maw noori nii mooy daayira yi nga xam ne te eh, ñoo aju ci sëriñ Cheikh muy fédération maj maw noori nii yépp ci bir rew mi ak ci bitim rew ba cheikh neena fofu talibé né mi ngi lay soññ ci magal gi nga xamné ne sëriñ bi mi ngi koy taxawalam waajuram yoy ma wax légui ci dëkkam bu sell bële di daru naim muy am ci ñaar fukki fan ak juróom ben ci wéru mars bi ñu né 2016 ba cheikh di ci soññ ñepp ngir xamné né ne njabootuk cheikh moutousa gi nga xamné ñom la lim ku leen defal bis njabootuk sëñ touba gep nga ko defal waye l'islam gep nga ko defal kon mi ngi ci soñé di ci sàkku seen teewaay waaye nag la ca jiitu na mu ko waxee mooy mi ngi ci soññu daara alxuraan yi képp koo xam ne dégg nga suñu kàddu loo man ci alxuraan loo man ci tudd borom bi subhaanahu wa taala loo man ci ay xasaayit na nga ko jàngal jàmbaar yi waaye yéene yool bi nag njabootug sëñ Tuubaa yépp yéene ko jullit yépp kon ñu ngi leen ci xaar ci Daaru Nayim ci ñaar fukki fan ak juróom-benn taseeg samedi euh, ci weer wii ñu nekk di weeru mars 2016 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bis bi nag ñoo ngi ci woo mbooleem ko aju ci Majmahun Nurayni bu Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Aliou rawatina fédération bi ñu ngi ci woy ndaw ñëpp ñu kenn xam ngeen ne bis bi xam ngeen ne euh, bis la boo xam ne dañ ciy sant yàlla waaye di ci ñaanal kilifa yu baax yooyu bis bi nag ñu ngi wax ne képp koo xam ne bokk nga maj moo honoré ni rek ñu ngi la ñu ngi la koy fàttali ñu ngi la ciy woo sëriñ Cheikh nag bàyyiwul ci woo mbooleem koo xam ne rek aju nga ci maj moo honoré ni ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina nag ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi euh, bis bi kenn ku nekk xam ne dañu leen cee soxla euh, ñu ngi leen koy fàttali te bu baax a baax a baax di wax ne ku ne ne daal da ko woote rek ci ñu teg ko ci sunna Ah, ci sunna rek lañ ko lañ ko lañ ko rek kon nak ñong koy fatali ñëpp di wax na dal eh, ñi nga xam ñu ñoo ci wala organisation di serigne Souleylo ak eh, serigne Mam Balla ak eh, serigne Badou Cissé ak serigne Cissé ñom itam ñong wax ne ñu leen di fatali bis bi waye ñi ngi wax ñu lañ ko fatali mbolam julit ñëpp ak bokki tali yëpp képp ku seen image bi na la leer na moy sax woote ci bis bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaw bi nak ma ngi wax ci turu soxna jor job ak aji Fadlo ñi nga xamantene ne ñoo jiite daayiratu Majmahun Nurayni di woo bépp mbooloo mboo xamante ne mbooloom jigéen mu nekk Majmahun Nurayni ci fi àddina ci biir réew mi ak bitim réew ñi ngi ñi ngi leen di woo ci màggalug daaru nayem gi nga xamante ne sëriñ Cheikh moom sëriñ Aliou moo ko fas yéenee taxawalal ay waajuram comme ni ko lime léegi. ñu ciy soññ nag bépp jigéen boo xamante ne yaa ngi ci réew mi ñu di la woo nga ñëw daaru nayem le 26. mars 2016 képp koo xamante ne nekk ko fi it fa nga nekk nga màggal ko fa ñaanal fa sëriñ sëriñ yooyu ñu tudd léegi ñu suñu borom dolli leen ay leer te yokk leen ay leer ca barzaxul muhammadiya ñun jigéen ñi nag amul benn jataay boo xamante ne mas nañu caawoo ñu des ca ginnaaw nañu takku ñëw ñu daan ñëwee. ànd ak taalibe gañ daan àndal ànd ak Pastef gañ daan àndal ak lépp loo xamante ne luñ fa war a def la ñu def ko fa lépp loo xamante ne luñ fa war a wax la ñu wax ko fa ñi nga xamante ne ñoo mën a liggéey ñu dem ci liggéey ba ñi mën a jàng arxuraan dem ci arxuraan ja ñi mën a sikkar dem ca sikkar sa ñi mën a def astaghfirullah dem ca mbooleem daayira bi nag mañ ma nu rey ni bàyyiwuñu kenn feneen fu jigéen nekk ci àddina tamit ñu ngi lay woo mbooleem kuy jullit kuy wax ashadu an laa ilaha illallah rek ñu ngi lay woo bisu daaru nayim boobee ak takkute ak Pastef gu mat sëkk day ñaan suñu sëriñ bi suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ko wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah rahmaan rahim foga sinig nogon cheikh aliou mbakke fene moofna ingedan halif général de mouritine sidi maktar mbakke roga ci no wod fo o wodanel fo o miñ meen simin a sirin amadou maktar fe andona ye ten refu o yaal mene i moofna o yaal daaru xudus yasam roga ciino wod fo o danel ar ɓasrinne fop sen cheikh ali fene no gonum ila kene nuen goya o fok sereer fop an bey fasinig madid magal fene o sirnoyo xoy tana wajurum tadik kene ta layna no ñaal xarɓen ɗik fo ñaal ɓe tufaleng no xool ngene i ndefna o xoya fok sereer fop an bey fasinig de préférence a tukar fop in way waya den no magal fene magal fa ando naye a xeɗo fo ñaan a ñanan wa jurum kene ena no mana dala daru naim maga magal fe waru xewit ren oxu inuna rek fatu tarid ma ando maga a xewit ka gon sen cheikh aliou

de euh, Mainunori Fédération Ɓulal CFK en a sohna en mboolem seen mbiyeteeɗo mbimi pulaar fof noddaama daar nayiima tinndori a ah, yamirore sin ɗo ɗo daar nayiim hikka ɗon euh, yamirode wala sin sidi moutar noddi mboolem seen mbimi hawra a yamitoona nde ma ngal ngal waɗata daaru nayi ngal ngal waɗa sin aliw ha sëñ ama tindoɗi hitaani fof waɗa ɗum hikka noon ko daaru nayi mi yonta rawande ko tindo hikka daaru nayi noddi mbownem seeɗa tindoji naaɓe faa ko tari daaru nayi yo ko tari ɓulal e kala dawira mahinu norino woni federation fof en noddam do fa bittim rew ala ɗo acci fof en wassalamu aleykum wa rahmatullahi ko def itam ci turu sëriñ mahmadan khalilo ak njabotam gep moom itam ci turam ñi ngi ci wote ci bis bi di ko bi moom itam luñ fa ñaan itam ñu delo ko ñu ko ci ñaan nga xamné ñi eh, ngi sakku képp koo xam ne ñëw nga ci bis ba nga nga def ko abillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdu wa shukru maan lillah ala nabi waladi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain ginnaaw ba nu santee suñu boroom tabaraka wa taala noo ngi julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di sant xaadimal mustafa di ñaan Cheikh Sidi Mokhtar suñu borom yàggal ko fi lool euh, ci ndigalam euh, la ñuy wootee bis bii nga xam ne danañ ko leeral euh, di ko def itam ci turu Serigne Ahmadou Mokhtar xalifa Daarul Xudus Serigne Muntaxa si Mbàkke moom Serigne Mouhamadou Bachir ak Serigne Cheikh Madina Serigne Abdou Fatah Euh, njabootu Cheikh Mamadou Moustapha gi yëpp tàmbale ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma euh, Serigne Bakke Madina Serigne Mahmadan Xarilo Serigne Ibra Serigne Sadiou euh, Serigne Khadim sëriñ Fallou moom Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko def itam ci turu suñu bàjjan yu baax yi mu di soxna Musli soxna May soxna maam Fatima Remalo bi nga xam ne daf ñoo seddoo ñu séddoo ko Euh, lépp lu mu nekk euh, maa nga ca biir kon moom itam ñoom itam ci seen tur lañ koy woote tam di ko def itam ci turu Serigne Moustapha Ndiagne moom Serigne Mbacke Soxna Lo ak waa kër Serigne Soxna Lo yëpp di ko woote itam ci turu njabootu Serigne Aliou gi yëpp di leen nag bis bi nga xam ne ñoo ngi ko jagleel euh, Cheikhul Khadim moom Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Abdou Salam ak moom Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Aliou moom Cheikh Mamadou Moustapha suñu way wayjur ak Serigne Ahmad Tindo di suñu wayjur moom itam ñeent ñooñu ñoo leen koy jagleel waaye nag dañ koy jàllale ba ci waa kër maam maaram yëpp te ñu jiitu ji woon jàllale ko ci waa kër maamoor Anta Sali ba mu soo si ci ndey bi léegi di xaadimu rasul nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg ak Cheikh sa àndoon ak moom daroon ko jàppale ko liggéey bi ba yoon wi egg si fii ñu jiitu ñooñu ñëpp ak Cheikh sa ak taalibe ak yëpp ñu jiitu ji boole waale nañ ci bis Eh, di ziare itam turux yi nekk ci senegal yëpp ñi ngànk eh, xulafaay yi nga xam ne ñoo ngànk turux yi nekk ci senegal yëpp eh, di leen xamal ne itam bis ba noo nga cay sàkku ñu def ko ci sunna di ci jàng alxuraan fu waaye nekk na ko nañ jàppale jàngale alxuraan ci ko mën a ñëw jamono xat na ku mën a ñëw nga ñëw ku munta ñëw fa nga nekk nga ñaan fa Euh, sunu xel nag daal na ci ndax fédération daaira Majmahun Nurayni nii lépp loo xam ne maa nga ca biir ñoo ma ca jiitu di ma jàppale nekk ci sama kanam sama ginnaaw sama ndeyjoor sama càmmoñ euh, lépp lu ma man ginnaaw yàlla ñoo ma ca jàppale kon nag ku leen am ñàkkoo dara ñoom la ma Serigne Touba booleel kon alhamdulilah maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ku leen am mm, ñàkkatoo dara kon bis ba lu ca war rek yemb na ba noppi yemb na lu ca war rek ñoom yembal nañ ko waaw xanaa ku fa ñëw kay saafonte ak ca barkeelu ca bis ba ñaan fa indi fa ñaan ku ko mënul itam fa nga toll nga ñaan fa loolu rek lañ ciy sàkku euh, di ñaan euh, sunu borom eggaluñ ca jàmm bis ba nag dañuy def bu ñu ko defee ren lu déwén nañu def ko daaru naim euh, daaw tindoo di la woon ren nag incha allahu daaru naim la daaru naim nag ku fa bëgg a ñëw Euh, da ngay diggante la euh, Ngaabu diggante boo génnee bu dee boo jógee Dakar la gën a jege bu fekkente ne euh, Touba nga jóge itam boo jubee dala lay doon foofu ngay jàdd ñeenti kilomètre la ak tali bi kon noo ngi ñaan suñu borom yóbbuñu ca ak jàmm ñu tàmbalee ko ci bisimillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin te suñu borom bàyyi fi Cheikh Sidi Mokhtar ak ñi ngank diine lislaam yëpp ak jullit yëpp euh, kon noo ngi jox euh, ñëpp daje ci bis boobee euh, di ci séentu ñëpp itam ci képp koo xam ne mën ngaa ñëw ku munte ñëw it nañ la waaye boo mënee jàng alxuraanu karim yéene leen yool ba itam nga def ko yéene ko ñi ma fi tudd ñëpp itam tañ jiitu ji kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu